nous jógee Ndakaaru spécial fi à euh, dit sage conseil départemental au nom des femmes Alexis entre autres euh, Amina Baro euh, Babacar Ndiaye donc tout le staff qui tourne autour d'elle à L'instruction indi ko teg ko ci loxoy kilifa gi nga xam si moo fi état ndax biir na ko ni su tegoo ci loxoom dana egg ci ñëm jëm donc du jàdd ndax xam na ñii li ñuy sol xam na li ñu doon xam na li ñuy doxee xam na aussi fi ñu teg seen tànk ak seen bët ci wàllu yorinu état ak doxalinu état donc loolu dafa nekk loo xam si dafa doon bëgg a sooxe ci yenn doxalin ci yenn pàcc mais ñii boo bëgg da nga ko ci am moo tax mu ni fexe leen ba gis préfet ko lu ko ci loxoom ni ko maa ko ko jox te xam ni fa bu jaaree ci loxoom ba mu tëddee ne ndax xam naa dana egg donc mu def waree fam ndax président moo ko laaj mu def waree fam ndax ci dëkk bi la dëkk di doomu dëkk bi mais mu def waree fam parce que bu gisee nawle moromam son wara ci def loxom mais mu jaar ko fam ko wara a muy autorité administrative bi nga xam si mo fi président de la république mo fi gouvernement te président demandé képp kuy autorité képp ak kuy kuy élu sa fa nga dëkk na nga fexé ba la nga am la nga man nga jege ñi def fa la nga mën ànd ak ñoom ci xeex bi parce que ñooy baatam ñooy tànkam ñooy loxoom fii loolu lañ Aminata Touré yebale donc ñu gërëm préfet ci dalal bi wàccoon na ko xool heure bi xam ne oto bi yeex naa yegg si mais wàccoon na mais daa génnaat këram solaat si ñu mooy wane ni moom mi homme d'état dëgg mi ngi la ko état sant ko mais ku xam aussi lan mooy wareefam ci jëm ci askan wi mais aussi xam na li muy def xam ne fi mu moo tax kee ko wóolu ba jax ba jaar ci moom juumul ndax lam doon séntu ñun daañ ko ne gis nañ ko fi ñu ngi leen gërëm di la sant ci dalal bi ak li nga xañ sa bopp uniquement pour taxaw ñun merci monsieur le préfet Macodou Diop mille carburant mille litres carburant aussi jox nañ ko gouverneur toujours ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci yónneentu soxna Aminata Touré parce que moto pompe yi nga xam si dañ ko war a déclenché pour mu manque ndox mi moom it ci wàllam du ya du ni muy yemee Kaolack mais moom du ñàkk mu am feneen boo xam ne mën a am bët foofu dana jàppale préfet mais na mën ñoo xam ñoom nu ñuy doxale Aminata Touré daal war na ko jóg jaar na ci ñu wara war jaar muy préfet ak gouverneur yi nga xam ci ñoy état au niveau régional et au niveau départemental. ma ngi leen di nuyu di leen yóbbante ci président présidente conseil économique social et environnemental soxna aminte Touré euh, diko sargal diko jaajeufal ci lu rafet li nga xam

loolu moom moo tax mu def lii ma di ko rafetlu bu baax ndax tam yitte bi mooy sedd askan wi ci kuddam yu njëkk waaye ma wax ne itam am na cax bu nekk ci miir bi bu fekkoonte ne ni lii mu def nii politique moo ko tax a jóg doomi Kaolack la kenn gënu koo xam waa Kaolack su ko neexoon muy seppati di xool kan la koy jox ak kan la ko dul jox waaye su amee mandute yëkkati ko wax ne teg leen ci loxo préfet loolu mooy defuma xeej ji defuma seen far farloowuma njaboot yi ku ko ci méngoo rek jox leen ko ko ma di leen di wax fii ne loolu mu cax bu doon létt firi naa ko mm-hmm. lim ci jublu itam danañ nu ko ko defal ci lu dul am benn xejj lu dul am benn seen góor ak jigéen ña koy yeyoo mhm. danaa def yi yëkkati yëkkatikoo jox leen ko loolu moom mooy li ci ne